mbokku internet yi boobee ba léegi ñi ngi ànd ak ci suñu plateau bu ñuy duppee yoonu màggal gi ñi ngi fii nag ba tey ci kër Serigne Abdoul Karim ñu daal fi dajee ki nga xamante ni moo di Mamour Mbaye yoonu géej gi bu Touba TV ñu bëri xàmmee ko nag ci di tagg ko ki nga xamante moo di Cheikhul Khadim moom lañ daal di daje lu ñu def rek lu dul bàyyi ko rek mu nuyoo ko mbokku internet yu koy seetaan sëñ Mamour nuyu nañ la waaw soxna si ñoo ngi lay ziar baax di ziar baax waa site bi nga xamante ne euh, site bu ñëpp di suivre la euh, muy 24 actu di jàmbaar yoo xam ni ku bëgg a am information ci sëñ Touba doo leen seetaan may ziar seeni i ak seen i téléspectatrices di jiital ci ziar boobu na nag Cheikh Mouhamadou Mountakha tey ñaan mu màggal màggal yu bari ak mboolem rakkam yëpp ak sëñ Touba. mu ngi ñëw fii tey fekk la fi nga xamante ni moo di saalu yàpp yi suñ Maam Mor ban relation nga am ak ki nga xamante ni moo di soxna Pouy. waaw moom sëñ Abdou Karim moo nu boole moom sëñ Ahmad Fadil boole weesuwul bi ñu fi jëkkee ñëw rek dana demal nga dal ak moom ma ñëw dal moom toog ba mu yàgg mu ne ma maa ngi ñëw sa kër sëñ benn naa fa agsi keroog dafa ne ma sëñ bi sëñ sëñ bi daf maa booleek yow boole googu nag ma kontaan ci ndax loo waroon a xëccu ji bu dawee ñëw ci yow kon loolu ak cant la ndax booba maa ngi xool fan laay jaar ba jàmbaari sëñ Tuubaa ji nu ànd ak moom ci liggéey bi muy Cheikh Abdou Karim kon loolu mooy relation yi nga xam ne boole nañu waaye nag noonu lañ ko amee waat ak waa kër gi ndax nu ngi siyaar baax soxna maam ami nga xam ne mooy sunu wuy jur fii ak soxna lii ka mi mu àndal ñu ànd ñoom ñooñu di liggéeyal sëñ Abdou Karim ci kër gi ñu ngi leen di siyaar bu baax a baax sëñ Maam Mor ku baax ki dane képp koo xamante ni mbégam sa mbég la na nga ko santale bis bii bis bii nan la ko lañ ko war a cantee waaw moom moo waxoon ne azabu ba xaybati azabu ba xaybati ya an allaha araada an anaala min wa an akoona shaafi an li xaw mi wa an akoona xaadiman fi daw mi mu wax ni le motif de mon départ de en exil au Gabon est la volonté que Dieu a eu d'élever mon rang jusqu'auprès de lu de faire de mien l'intercesseur et le serviteur éternel du prophète soxna si bis ci lañ dagg suñu njoñ ci lañ dagg jéng yi bis bi ñu jëm ci lañ goreel ci safara mën naa ne ndax weeru koor a tax nu goreel ñu ci safara te weeru koor yi buñ ko talee bis bi moo réussir moo tax tubaab bi li mu bëggoon mooy bu bis bi bu ci sëñ bi réussir woon woon li mu réussir tubaab bi am ci ndam benn weer booy jaamu ba koy tal du am kon te boo seetloo ci archive seet ci Sénégal ñu wax la histoire nga dem ci sori carrément di nga xam ni buur yi fi nekkoon di jaay damel tubaab bee leen faat mais di nga xam ni aussi ñi fi nekkoon di jaal maay teeñ di bawal tubaab bi faat na leen ca cawaalo saa muri ture Afrique jeex kenn desatu fi suñu roi yi roi yëpp tubaab bi faat na leen waaye suñu sëriñ si fi doon bañ tam ndax xare Maba Jaxu Ba dégg nga ko ca somb bañkat bu mag boobu te bu la neexee sa demal ci histoire nga gëstu ji yonent yi weesu woon yàlla daan yàlla day yebal nit ne ko wooteel nga woote say mbokk ne doo ko fi wootee nga insister ak ñoom ñu taxaw pour faat la ba ci Seydina Muhammad bi mu wootee màkk danoo lank ñu néew a jébbalu jaayante ak moom ñu bundu xatal ko fa bu mu jógee foofu dem Madina waaye seetlul ginnaaw yonent bi ba yépp mennum Abu Bakrin Siddiq lañ ci reyul Seydina Omar jullit yee ko rey ci seen biir Seydina Ali noonu Seydina Ousmane noonu waaw léegi kon problème am na yaa problème moo tax sëñ Tuubaa keroog bi mu naan Cerno mu ne ko Mbàkke mu ne ko dama lislaam dafa dafa dafa dafa tilim mu aaje woo ndox mu bari ak saabu bu bari ak fuutkat bu am doole moo tax sëriñ Musaa Ka ni yan ban yenoon xutbu ya ak abdaal ya te àttanuñu ko moom moo ko fopp raw gaaya dëngeen di wéy nag sa sóoratul baraaya sóoratul laxwaaxi la am ci wilaaya daal di cay àgg ne sëriñ si naaxis lan bambay kaamil mbër yépp suq lan bambay kaabal te soxna si coow lay fi ne rek Sénégal neex na lamp yi leer na tali yi talli lal yi nooy ceeb yi niin ku ne naan mën waaye sunu waa ji fa mu waxee mana góor jotewu fa ba naan fii mana a moom daa dem ba diggante làmbar na ak maayomba mu ne nag li laay xat wasaltu inda galwaa wasa nan yaa maay jóori balwaa foofu la ko waxee de waxewu ko tuubaa waxewu ko njaareem bi mu koy wax gisul sëñ Daaru Asan Njaay bi mu koy wax maam Cerno nuyu ko bi mu koy wax Seex Ibra Fall bëful bi mu koy wax sëñ gaawaan ziyaaru ko mu wéet fa lool sëñ Musaa nee na fekk fa fépp fuli julleem ga wéete wéet gisut amul muurikoor muuri koor wuruufi afdala manta sàkk la Bàmba daan def muuri koor xat sàkk waaye wolof ya ne dijjiñ ji fay na mbaal ja jéem tële ci gàcc dee ci waaye suñu saaka nee na keroog la dem booma ba bu buyaama ca côté waaxi matadi ak bu buyaama kongo français luango ak bulwaar romb na leen bu yàgg ñu naan ko moo doy waar dal di weesu Brazzaville ak Kabinda ñu naan ko yow mbindeef nga am fi ki bind mu ne foofa la daam wàcc fanaan Besserwil yi poste bu lëndëm sore naag baa fi di loolooy màggalu Touba. mu daldi ñu yóbbu ko Mayomba sëñ Tuubaa def na juróomi at Mayomba yoo xam ni man bi ma demee Mayomba ci laa ne wax naa ko Seex Basum sëñ Abdou Khadir dama ne ko Mbàkke dafa waroon a bokk ci sart yoonu murit ku jàngi ba ñëw ñun la da ngay dem Mayomba. parce que soxna si maa yomb mënuma la koo expliquer ci site internet bi du yoon ñu jële fi nit yóbbu ko ba foofu ñu ne def na fa cinq ans ba pare mu dellu siwaat fii ak njabootam di feetu loolu logique waaye nag yàlla heureusement kenn du ko gëm ci lu naa Seydina saa amul baay loolu logique yooyu lañ gëmee yàlla ñun yonent bi weñ daawu ko tong mooy ngën gi mbindéef xayrul alamin moom moom moom mooy suñu patron yooyu la ñu gëmee yàlla mais yooyu kiimaan la mais nag Serigne Touba moo ni woon may na ma dalub lislaam moo tax biñ ko yóbboo Mayumba Serigne Touba def na fa juróomi at yoo xamante ne taw suba fu mu ko fekk bu ngoon bi fa la koy fekk te Mayumba taw yooyu bokkut ak yi taw fii de ñun taw bi gën a rëy fii bu tawee Gabon dañ naan da doon wis wisal ñoom waa Gabon loolu la ñuy wax te 3 mois la dul taw at mi ñoom bu ñu nee ñu ngi ci noor mooy ñun moment bi ñuy nekk ci nawet te seen noor mooy toog na semaine tawul amut mbaar gisu dara day taw muy jël muy nëbb téere yi di tooy loolu sëñ Moussa Ka ni Seex Bamba def juróomi at Maayomba kenn waxatul Samba dem ba Bamba. guddik talaata la jëkk fanaan maa yomba làbbe yi naan ko yaa di seexu bamba seex bamba julli na fa ñaari rakka jaayante fa ak xayral waraa njol màgg waaye nag may yi ma wax la ko liñ ci xam dafa ni foofa la tàggoog musrikiina ak musrikaat foofee la tijje màngi sini barakaat foofa la dambi mulki ak malakóot foofa lay àttee pii yàlla jabaroot foofee la amee sikhri sakirin dellu ko boole sikhri sakirin foofa la amee nu nujaani arabi faw xaña nampoñ ca jasaawu arabi foofa la amee barakatu quraan yi fa la sëñ Tuubaa rawee bii daan ak soodaan nit ku weex fa la ko rombe nit ku ñuul fa la ko rombe mu ne nag foofa la bis yi ak weer yi ak saat yi soppi ko ay jëmm di xar aadaat yi di ko digal naan ko noo lay seere yowmal xiyaamati lekk biire yoola la Bàmba way ca boobee téere yi lay bëyit na bépp fóore ma rasulullahi rabbal kulli wa sarmadan jaaran kasaran xulli moo tax négrier dinaa euh, xam naa pour ma tëj négrier ab tubaab la boo xam ni tubaab bi dañ ko désigné en France ne ko yóbbu nañ sëñ Tuubaa Gabon mënaluñ ko dara dugal nañ ko ci mière boole ko gaynde ci Dakar lors de sa déportation fut enfermé dans une cellule de jardin de de Saint-Louis pendant plusieurs jours avec un lion affamé gaynde gu xiif lañ ko booleel boole ko nag ah tàbbal nañ ko ci géej gi ñu échec gabon coono nañ ko fa teg indi nañ ko gànnaar foog ne naar yi dinañ ko daaneel naar yi mujj di jébbalu ci moom benn problème lañ dese faaw ñu désigner koo xam ne il s'appelle négrier bindkat la ñu ne ko yàqal deram ñooñu lu ñu mës a bind seen bind day des négrier ne signé naa ak yéen contrat mais foog ma ki may yàq deram faaw ma ñëw xool mooy kan parce que ci laay mën a xam nu ma koy caricaturer négrier ñëw nekk ak sëriñ bi ci xayma gi ay da koy xool di ko xool ba yàgg léeg mu romb ko loolu sëñ Moussa Ka naan bu nekkul di bindit boo ma ngay yëri mool bu bët yey nelaw it xool ba moom ma ngay xool bu cër yey nelawit it ruuga dem aras moom xanaa war na bu raax mbaa mu war ca xay suum te lay laa du ko tee dem ca pays diwaan ca passion yañ sàkkar di jàlle lay naan borom taar bi la jommal na saaru mbar daan tabaaraka ma jàngal ko saaru furxaan bu injiil ñëwaatoon mu mel ni musa bu tawrit ñëwaatoon mu fal di Isa sa mbuuti xalima sa mbuuti xasida mooy mbuuti la waxi maxfuus borom kun du la gàgganti bomba bamba yaa fees dal na ci kun lay téléphone raw na DPS xol ba moo gën a leer làmp buñ jafal mees bu bu bu ñuulaay bi di leer xet si kim benn laas di safra laari wurus moo ko jekki ay faas caqab kër maaram diggal ba lay raas ñu teew ak ñu fi teewul xasan du seen maas sëñ Moussa Kane ko wax négrier di xool sëñ tubaab mu yàgg rek ab tubaab la cofeel dugg ko mu ñëw ni France lu ngeen ma doon fay mënatuma ko je rendrement ma démission kii mënuma koo yàq xanaa xamoo léeg-léeg nga bëgg a yàq nit mais sax sa xola doo ko sax sañ. parce que foofu nga ñëw fii lancé waale message jeunes yi nga xamante dañuy nekk ci réseaux sociaux yi di ñi sëriñ si ak yooyu te sëriñ Touba jàngale wu di commentaire fi mu ne boo dugalee lii léegi nga gis ku wax lu ñaaw mais ñooñu ñoo yàqu xam nga ma wax la leen seetlul yow ku commentaire ci yow yow taloo ko bay commentaire ci moom fi mu sañoon mel ni yow parce que yow ñi nga jiitu ñi nga xam ne ñi ngi sa kanam. talunu la bay commentaire est-ce que comprendre nga fi ma waxee ñi am jot xorom mënuñu koo jënd tekkiwunu dara ñooy nekk ci dans les réseaux sociaux yi ne ci internet bi am 100 crédit ñu dugal nit nga saaga ko. déedéet ba leen ñoom loolu la ñu am parce que et puis ay ragal la naa. man lu ma waay wax ci internet am nga ci droit mais xam nga ne boo jàkkaarloog maam Mor parce que Cheikh Ahmadou Bamba boo moytu sukkuraam parce que ñun ay nandite leen dëkk ndakaaru teeg lépp xam ba pare na ko fa ñukk takk sunu loxo saay di liggéeyal ku tedd ki jikko bu fi waay indi di ko fi fekk mais tëdd sa néeg tëju wax ci nit lu ñaaw walla nga ne Europe dégg naa ko ñuy wax xaw ma nan man sax mosuma ko seetaan ma nga Europe di saaga mag ñi rek nga xam ni kooku yàqu na mais nag maa mën a waatal ci sëñ du ko def ñaari at mënta nekk am na lu ko fay fekk faj ko sëñ Abdou Lahat nee na bañ sëñ Touba di koo feeñal dafa mel ni nga sangoo essence ba pare dogal ak daay te ne duma lakk di nga tàkk ba jeex nee na bañ sëñ tubaa di ko nëb di ko nëbb nag mooy làqatu di naan poson te ne duma dee di nga faatu ba wow moo tax maa ngi wax ñi ma sañee wax képp ku ci nekk ci réseaux sociaux xoolal la baax nga commentaire ko sëñ tubaab bind na xasida yoo xam ni mënta jeex ci réseaux sociaux ni waxante lu baax réew mi noo ko bokk te bàyyi ŋàññante mais am na ñoo xam dañoo am jot te ragal ragal dëgg mooy saaga nit ci réseaux sociaux te yooyu amul sens waaye daal sëñ bay Jaxate moo ni woon lu waay rëy rëyub cër du yóbbaale kat cërub nit cërub nit ku bëggit ba fa fi mu ne fii nga nekk nii am na koo xamante ne nii dalaa noonu xam nga lu na noonu bu ñoon moo fii ne c'est ça le problème loolu la de bari na lu waaye di ŋàññ ñàkk koo am rek moo tax bari na lu waay di ŋàññ it ñàkk koo mën a tax fi mu ne ñi nga déggoon ñu doon ŋàññi màggal gi yëpp naan non il faut annuler il faut nangam bu ñu sañoon ñoom ñooy woote bis boo xamante ne te imaginer bis boo xam ne sëñ Muntaxa da ne bisimilah seex ba sax a wax ñëpp ñëw te mobiliser nu benn kaar ay millions ngi nit daje fi ku mu mënti doon booy mobiliser boo bëggee junni nit daje sur le sur place di nga génn xaalis ñun nag dañuy dañuy jël suñuy kaar ba pare ñëw joxe. ba pare xoolal naan li ma joxe daa tuuti. Serigne ko am. xam nga lu waral loolu est-ce que xam nga ni sëriñ amul woon amul woon valeur bi Serigne Touba duggagut ci këriñ fi ne bi mu duggagut ci santam wi mbàkke gi mbàkke mbàkke yi jaañ jaañ yee yemoon ñu baax lan ñu sell lan waaye nag yónni ku la mag mu daw sant mbàkkee koy maye te Serigne Touba bi mu duggee ci sant wi la ko aar. aar na ba aaru santam demal port port autonome de Dakar mën nga faa fekk junni dokeer maan sant wu ne la sant waaye ko sant Mbàkke du ci bokk si seen maama ko liggéey fi mu ne man mbaay laa sant avant lii mason laa woon ñaata maçon ñoo fi sant Mbaye mës nga gis Mbàkke Mbàkke bu sant bu buy maçon menuisier taximan yooyu yooyu xew maam sëriñ bi moom la sëñ Moussa Kane àll kër jaam ak gor ceddoog sëriñ buur ak ki dak mbokk ak ki jàmbur ñépp a jag jaaraamaa daam ci xarnu bi waaw négrier dama am lu ma waxoon négrier ab tubaab la gis nga bi mu bi mu démissionné ba pare dana day tagg sëñ Tuubaa li may bëgg a wax moo ko wax rapport bi keroog bi ma ko sama benn xarit joxe ne ma négrier xoolal li mu wax ci sëñ Tuubaa dana sëñ Tuubaa der bi dafa ñuuloon comme bantu jalambaan sëñ Tuubaa bu musaa ne génn ci biti ñuulaay bi mën nga cee seetu moom la sëñ Musaa Ka naan euh, bu ñuulaay ba di larxet sikkim ba ni laas mu ne nag négrier ne ku tuuti la woon nee na la weex ci bët ba daa weex tàll amul taas lu ñuul ñuul kukk négrier nee na sëriñ tubaa gëmam amul waaye ku mel ni mësuñu koo gis ñun ci ñi ñu mës a jëflanteel ba ci yonent yi ñu ne ko bindal mu naan sëñ Tuubaa de pas Sarr Noir Sœur d'Ébène quelqu'un qu'on n'a jamais vi dans notre vie ku mel ni mësuma ko gis ñu ne ko lu tax mu ne ce qui est blanc dans ses yeux est complètement blanc ce qui est noir est complètement noir les yeux ronds de sa de sa taille qui est très de son corps qui est luisant Cheikh Ahmad Bamba un homme incroyable opiniante de par sa foi et sa religion inébranlable on n'a jamais vu quelqu'un de pareil Cheikh Ahmad Bamba